bonjour. ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal. maa ngi leen di fay. mën nañoo xam lu loon sa teewaay fii. sama teewaay fii kii sama doom la soxna Fatou mi sama doom la sama kër la dëkk te bu mu dëkkeek man ba léegi mu ngi bëgg a yàgg mais musuma gis xale bu yaroo ni moom xam teraanga respecté mag saa yu tukkee ñëw bu ñëwee dana ma indil sarité lu am këram weeru koor weeru koor mburu ba ñuy ndogoo suñu kër weeru koor ba mu jeex moom moo koy indi ci kër gi kon nag kii lu mu oote maa foore jiitu maa ngi koy ñaanal yàlla doomu sëriñ la sax moom am na ñaan moo ma war a ñaanal sama sëriñ la waaye dama koy ñaanal moo xam fi mu bëgg a yàlla na ko fa yàlla yeggale en tout nii mu commencé nii muy doxalee ak ay dëkkandoowam mënul am lu dul lu baax kon vraiment je suis fière d'elle jigéen yu mel nii la ñu soxla ci réew mi parce que elle est généreuse gis nga nit bu amee diine ba pare euh, rafet xol yéwén ci alalam nit ku baax la nit nag mënul parfait nit mënul nekk parfait à cent pour cent waaye moom de moom li ma gis ci moom ci lu baax dal na sama xel te xam naa ne bu ñamee jigéen ñu mel ni ñu bari fii suñu réew ci kanam rek la jëm bu weesuwee loolu nag naka nga dundee màggal gi nga xam ne daaw ak ren mu koy def fii ci Dakar. waaw daaw nag man malheureusement dafa fekkoon ñu am séminaire ma nekkoon sali donc fekkeewu ma ko mais lii muy def ni baax na parce que euh, bu màggal gu mag nga jotee ñëpp Tuubaa lañu jëm kon yeneen màggal yi war nañ mun di ko def un peu partout di ko décentraliser comme on dit pour que nit ñi gën a xam suñu chef religieux yi xam nga am na ku ko feexoon bu yàggul ne dañu war a jàngale ci école yi suñu dignitaires yi suñu chef religieux pour xale yi ancré dans leur valeur culturelle et dans leur valeur religieuse lii ñuy def nii xam nga toog di waxtaan fii ñu lay wax kan mooy sëñ Abdou Lahad di la wax ay ay waajuram di wax di remonté ba sëriñ Touba loolu xale bu fi toog tey da nga xam ne ñii am nañu njëriñ kon loolu lii man je crois que c'est une chose te war nañ ko def ci dëkk yëpp fépp fu doomu sëriñ nekk rek doomu murit bu mu nekk que ce soit à Dakar à Kaolack à Thiès partout dans toutes les régions ku ci nekk bu defalee rek ñëpp danañ xam. mais madame la ministre daf mel ni campagne bi ba léegi de bàyyi woo bële bi ba tey de. campagne lan yow déggoo li ma xanaa je suis man damaa jël ay année sabbatique damay noppalu fi. gisee ma lay tooñ maanaam ay élection locale yi bleu bi moo nekkoon sa couleur moo tax ma lay sànni xeer. le bleu nag kenn moomu ko gisoo du bleu y du blanc y de l'argenté. mais nu dundee la situation actuelle du pays ci politique bi. jaxasoo na trop moi j'ai très mal li ma gis vraiment neexuma. parce que li may wax rek li tax ma ne damaa bëgg a retiré wu tuuti ci politique bi yu mel nii rek moo tax invective yi bari na xastante bi bari na sos bi bari na te loolu baaxul ci réew mi nañu delloo si xel yi te xam ne lii àddina rek la te wax dëgg yàlla nañ ko def def ko defin bu rafet parce que lii day jeex te bu jeexee ku ci nekk da nga dajeeg sa morom kon nag nañ rafetal diggante bi prôner la non violence waxtaan ak nit ñi waxtaan ba juboo amul benn problème insoluble problème bu mun a am ci àddina war nañu mun a toog rek ko kon maa ngi aw ñëpp ci jàmm ak salaam élection yi ñu jëm yàggatul yàlla na yëpp sedd ñu dem ci ak jàmm ak salaam génn ci ak alhamdulilah rabbil alamin parce que nekkul ñoom ñooy influence ñi nga xam ne ñoo di jeune bi ci violence bi nga xam ne jamono ji xewal nañ ko rey bi bari na agression bi yaa na à gogo donc lan moo ko war a mën a euh, indi. li ko mën indi mooy euh, xëccoo bu metti ak yàkkamti. man toujours dama koy dama ne xale yu tey yi dañu yàkkamti gis nga nit ku nekk luy sa wërsëg lu yàlla bind sa jëbi tôt ou tard da nga ko jot donc nañ ànd ak dal ak teey ak yar ak teggin nit ku nekk am nga ambition waaye nag doone lii sama morom bi am na li par force man tam ah, danaa ko am loolu mooy indi lii ñu am nii rek ah. gis nga meurtre yi fi am semaine dernière week-end dernier ah. lan la vouloir vivre au-dessus de ses moyens mooy indi lii kon nañ delloo si xel ñun yaay yi nañu xoolaat suñu doom yi nañu waxtaan ak suñu doom yi nañu éduqué waat xale yi jàngal leen yar jàngal leen teggin jàngal leen muñ wax leen ne àddina ndànk-ndànk la yëpp mënul xëy benn bés rek sotti ku ci nekk li nga war a am da nga ko am ci àddina kon nañ dellu ci waat ci yar gën a yar xale yi gën a waxtaan ak ñoom soobee yàlla Sénégal dëkk teranga la dëkk jàmm la loolu dans toute la sous-région on était le seul pays stable mais ce qui se passe maintenant que li xew feneen di xew fi yàlla bu fi loolu am yàlla na fi jàmm rek wàcc. merci beaucoup madame la bi naka la. madame Seye Ndeye Maguette Thioune. Euh, lu waraloon sa teewaay fii ci màggal dama ñëw ziar. Ibulaay ñu ngi lay sa wàccuwaay sous l'invitation de Mame Fa de man yaakaar naa ne taalibe bi ngay wax ci jëmm joojee Mame Faty Sidi Mbacke. te daal doon waxtu la xale bu baax. musul am lu am. di sama mbokk. di yaay ci man. ku nekk sañ nekk xale bu baax macha allah. boo gisee ni mu demee sax nga xam ne ku baax la parce que nit ñi nag amatuñu jot donc euh, bu ñu ñëpp bàyyi seen yitte ñëw wisi ko euh, jikkoom la. mais yaay li nga sànc mbaa xeeboo ko rafet na. merci beaucoup. merci communicateurs ñu lay jaajëfal. merci beaucoup jërëjëf.